ma owoon suba boo ma suba 8 ma ñëw nekkal fii ba minuit pare pare naa ci loolu parce que am naa naqar tey mën a ñëw tey fu 4 heures ba 4 heures 4 heures ba tey ma toog fii di xaar pour rek débattre ak yéen discuter ak yéen am occasion wan la li ñu def parce que boo fekkee ne da ngaa bandé sa bët yi ma dindi bande bi nga gis nga gis loolu moo ci am solo maintenant nag maintenant nag tooñ nga ma tooñ nga ma lu nga xam ne ñoo ko bokk parce que tooñ nga ma ci affaire bi mais man su ma paree suma liggéey comme yow foo paree sa liggéey seen liggéey yi ngay def ak à gauche à droite te nga nekk député te nga nga nekk te nga nekk député man su ma paree su ma liggéey mais dafa am ñu nga xam ne bu ñu paree seen liggéey dañuy toog ci baar ya am na ñoo xam ne bu ñu paree seen liggéey ñu ngi ci leneen man su ma paree suma liggéey maa ngi ci football ba su ma paree su ma liggéey loolu nag loolu moom loolu lu bari lu bari lu bari te te nag sëñ sëñ Cheikh Abdou. fii ci réew mi la ñu bokk li ma li may wax ci biti si sama liggéey bokkul ak li ma wax tey ci assemblée nationale. mais.